monsieur le xam nga li ngeen di wax nii. Mhm. gars yi jéem nañu ko mais clientel bi mën na bañ a nekk au bu xam nga lu tax. Mhm. Euh, dañuy ñëw ñu dajale jigéen ñi man gis naa model bu mel noonu ku mel ni Aly mhm. def na ko à Linguère jël jigéen ñi dajale leen jël ma femme mara yiy def maraîchage dajale leen di leen bokkuloo ay activité mhm. produit bi mhm. du am qualité bi nga xam ne mhm. moom la la majeure partie des sénégalais di jëfandikoo c'est-à-dire du ñu am niveau de compétence technique bi du ñu am euh, la logistique pour mën a defar produit yoo xam ne dina par exemple adapté damay je veux pas c'est pas pour faire de la et puis je devrais même faire de la publicité parce que c'est une belle initiative mhm. am na euh, benn euh, defarkatu produit euh, toilette produit beauté pour pour tout le monde mhm. bu tudd skin biologie mm -hmm. xaw ma ndax bénéficier na mhm. du support mhm. de l'État mhm. mais kooku aujourd'hui defar na des produits adaptés yoo xam ne da koy fekk dañ ko agréé bu nga koy fekk dans les pharmacies nit ñi di ko jënd di ko utiliser di ci gis euh, seen bopp genre yo genre initiative yooyu. Euh, dañ ko war a dëgëral. mais souvent boo waxee bu ñu tegee ay structures de financement. Euh, damay gis quand vous allez vers ces vers ces gens là on te dit non ñun. Euh, di defar des produits yoo xam ne dafa mën a concurrencer. les produits yi ñuy jëlee bitim réew. ñun ñu ciy rey suñu bopp. indi nga wax ji nag loolu moo tax ma ne la économie sociale solidaire boobu ma doon tudd moo fi amu doon recevoir naa ñu mel noonu. man mënuma la wax sax li ma ci recevoir euh, te ñi ma recevoir ñëpp je parle sous le contrôle voilà de de des des agents du ministère ñoom li ñu ma wax à chaque fois dañoo daw ba sonn mais euh, on nous recevait on ne nous recevait pas ñooñu mel noonu recevoir naa leen xam nga leen moo am cest à en fait dañoo systématiser wu doon loolu c'est-à-dire économie sociale solidaire pour dëggal li ngay wax pour mu am dafay am une approche état approche bi muy am da koy centrer sur la chaîne de valeur pour la première fois au niveau du ministère bi ma nekk nii ñu am une politique d'économie totale solidaire xaaral ma jox lu wax la naka la demee. <laughs> pour la première fois pour la première fois. ah non monsieur le ministre nag bul wax loolu. non pour la première fois je vais te démontrer. Euh, mais mais bàyyil ma démontrer ko rek. mais mais c'est pas abusé là. njëpp du tout abusé Maymouna. ah bon dama la koy wax nga xool. ah. wax naa ko nee naa leen microfinance on a une politique de microfinance. mais pour l'économie sociale solidaire amuñu politique économique sociale par contre ma wax leen. am na lu am tolo lu ñu def benn jéego bu am tolo boo xam ne foofu moo wax ko mooy la loi d'orientation sur l'économie sociale solidaire loolu moom jéego bu am tolo la. te loolu du politique gouvernement bi koy bi ko def. ma ne te loolu du politique. non xam nga politique dafa englobant du loolu rek da ngay def loi bi ba pare tëral politique bi politique bi nag moo amul xam nga tax ne politique bi amul tey boo jëlee euh, tey euh, pour nga am économie sociale solidaire dafa am ñetti dimension yoo xam ne faaw nga am ko. première dimension bi mooy la production solidaire deuxième bi mooy la mutualisation moo waral ñuy wax ay mutuelle troisième troisième dimension mooy économie sociale léegi loolu lii tax état mën a am politique d'économie sociale solidaire day def benn approche d'intervention boo xam ne da koy cibler sur toute la chaine de valeur parce que économie sociale solidaire de valeur tey boo demee ci coopérative yi surtout dans le bassin arachidier par exemple wala nga dem dans le de, la, fleuve Sénégal di nga gis ne am na ay coopératives yu jàmbaar yoo xam ne tey lii ngay wax nii suñu état bi amoon systématisé woon politique boobu ñoom dinañ dem ba defar ay produits semi manufacturiers. voilà ñun ñii fi ñu toll nii tey ñun pour la première fois defar nañ benn convention boo xam ne ñu ngi koy finaliser war ko jox le ministère de l'industrie muy lan muy développement. industriel inclusif durable par l'économie sociale solidaire ñu indi intervention yi xaaral li ma lay wax li tax man la amu ñoon politique ñeenti façon intervention la état war a def soo jëlee chaîne de valeur bi depuis en amont euh, l'achat des intrants et des facteurs de production la production l'agrégation le transport le stockage xaw ma ndax yaa ngi may dégg la transformation la conservation la distribution am na ñeenti intervention yu état bi war di def pour les coopératives te defu ko ñun bi ñu ñëwee loolu lañ njëkk rek réglé muy d'abord li ñuy tuddee boutique source boutique source ñàkk am bu mu ñàkk am moo tax nga doon gis ay jamono ñiy liggéey boutique source yooyu moom moo indi problème boobu parce que boutique pour war la ne dafay lëkkaloo c'est une approche systémique boutique surtout boobu pour bañ a jàkkaarloog problème boobu li muy def mooy lan am nañu quantité boo xam ne fi ñu toll nii on a l'intelligence économique qui fait que lii mënuñu ko jaay ci marché présentement ñu waajal si qu'on appelle les boutiques technologique boutique technologique yooyu foofu da ngay gis ne dafay am transfert de technologie day am ay formation day am ay labellisation yoo xam ne mooy tax soble boobu mën nga cee def ay produits yu bëri yoo xam ne dootoo amati ay perte post récolte mais politique boobu amul soo jógee ci boutique source boobu léegi boutique technologique boobu da ngay am boutique production mooy lan boo jëlee par exemple gerte gi gerte boo jëlee gerte lépp produit gerte amul dara lu ñuy sàndi lu mu nekk loo mën a xalaat ñu ngi koy def ci gerte production boobu mooy indi la spécialisation des acteurs de la coopérative foofu di nga gis ne dina leen jox ay xam-xam ak ay xarañ te yoo xam ne da gis kenn koo xam ne benn affaire rek lay liggéey ci gerte gi peut-être chocolat peut-être du saabu peut-être voilà moom loolu rek lay topp mais day dem ba da ciy xarañ ba day mën a manufacturer kooku dina dem ba nga xam ne tey bu génnee produit bu ko tegee nii doo ko mën a ràññetle bu nekk usine man dem naa Belgique liege ma gis fa ay chocolaterie yoo xam ne ci kër yi lañ koy liggéeyee mais yow bu ma la ko joxee doo xam ne lii jógewul ci kër ci usine da nga naan ci usine lañ ko jëlee ci qualité ak lépp loolu li koy waral mooy lëkkale ñaari boutique yooyu boutique tour euh, technologique ak boutique production foofa nag ñun moo tax gouvernement bi approche bi indi amu ministère de l'industrie nag foofa lay lëkkaloog ñun ci protocole bi nga xam moom lañ leen war a jox mu am troisième boutique bi nag quatrième boutique bi xam nga wax naa la deux tourte technologique production boutique témoin boutique témoin li muy def mooy lan foofu dañuy utiliser intelligence artificielle tous les produits yi nga xam ne gannaaw jàll nañ ci pap niveau yële da moo tax gis nga da ngay commencer tourte bi ministère de l'économie sociale solidaire ñun la production ak technologique ak ministère industrie lañ koy def ñu demaat ci boutique témoin mu nekkaat ñun foofa ñay liggéey groupement de femmes yeeg yooyu bu ñu liggéeyee man expérience boobu def naa ko Bambey boo demee sama kër sax da ngay gis benn boutique témoin moom laa def ci buntu kër gi boutique témoin boobu bu coopérative GIE bu admettons GIE boo xam ne voilà am na cent personnes cent personnes yi mën nañ def production solidaire mais mën nañ def aussi production individuelle jox leen benn sécurité ba nga xam ne am problème mu noonu la boutique témoin bi du nekk foo xam ne produit yooyu rek lay jàllale yow boo ñëwee danga koy jox rek mu enregistré li nga fi bàyyi su jaayee ba mu jeex mu ñëw jox la sa xaalis